ma dellu woy mi tey dagaan ndimbal ci ma sama zaman ñaar fukki fan ci ramadan te fas ci barke ak ngërëm ak cant ñeen na lamp faal Cheikh Ibra bàyyi kuy rijaal danañ la sant naa la faal yaa tax ñu tàbbi gaalu ngëm yaa wokk xol yi doon nelaw joxoñ ñu bàmba woo ca kaw xamal ñu fuñ di aw baraw ku làq ngëm na lay gërëm yaa tekki ëmm bii ci daam yaa tas tasal ko def ko ba ñépp mos ci tedd nga am ku jot ci daam na lay gërëm yaa banque faal suñ tànk yi yaa sëgguloo suñ yi yaa suufeloo suñ jëmm yi ci seexi bàmba ak waa këram yaa yulli boo si loo ñuy ñaq yow nga nuqiloo ñuy nuqi yow nga daanu lool yar yaa ngi bees xol yaa ngi gëm toxoñ nga bët yi bañ na xiim joxoñ ñu ahmad al xadim naa góor a ngi ñëw leen te yëm yaa yéemu yéemuloo ko gëm Cheikh Ibra Fall da ngay di jàll Cheikh Ibra Fall da ngay kamaal koo gis mu xiif nee nga ko naan feesal nga kol li yekki ñam suñ tooli xol yi yaa ko aar ba noppi ñag ko kenn ruur yow rek yaa xel te ñun wóoru nañ la jox la ngëm ku nanguwul ñun nangu nañ ku santu leen ñun sant nañ ku diggu leen ñun digg nañ ku gëmu leen ñun ñoo ngi gëm ku réere ñun gindiku nañ ku teggi ñun dëgmal si nañ ku lay moyit ñun jublu nañ ku xamu leen ñun ñoo ngi xam yaa ahla bahri géej a ngi yaa ahla barri sang a ngi yaa ahla naasi góor a ngi nañ nangu ñun far ne nërëm jinne yi làmb baa ngi nii yéen ñi wéeru waay a ngi su gusu leen ne yéen a ngi ku nanguwul du am ngërëm siyaar si leen borom kamaal siyaar si leen borom jamaal borom jalaal ju feese xaal ndox maa ngi nii ñëw leen dëtëm waa ju dëtëm feese xikam a ngërëm feese ki ndam nañ xool ci moom tey doy mbiram ñu jox ko xol yi na mu ngëm dogal bi wéy na dem na kaw maam làmb sut na rawantewul daa ma sa raw limal nangul dogal ci ngëm allahu yàlla laa ilaa si kar ko tekke illa moo tam ma làpp lew na laa ngir moo ko daa sikkari lim moo tam sikkar mi ngi ci loxoom al ismun ahsaman ci moom ay fukki junni ñaar ci ñoom la daa sikkar ci ay tuñam moo tam xasiida moo ko moo boole sol ko cib dënam ba daa ko tàggale géegam di tudd yàlla ci xolam kuy war di jaalu góore ngi kuy wuti sang-sanga ngi kuy wuti ndox ak géej a ngi kuroot si beesali ndabam amul morom amul morom ci fenn kii amul morom amul morom amul morom yàlla ñu tàbbi jiiru xam ñu def baybal gën di farlu tey boot ci xol yi bépp tër bañ mën a tàbbi ci xolam yàggal bi làpp kii ñuy yër as-Seyxi Muntaxal Basiir ata gudd far tewel sawar ci barke Ahmad al Xadim yàggal bi làpp kii ñuy yër as-Seyxi Muntaxal Basiir te gudd fan te wér sawar ci barke Ahmad al Xadim jëmm faal yàlla ko may ay leeri leer yu dootu fay te fee jëm te loo may na yokk faa ba fa ñu jëm seex jëmm faal yàlla ko may ay leeri leer yu dootu fay te fee mu jëm te loo ko may na yokk faa ba fa nay gën di yokk ak wéram aku fanam aku manam aku amam asadu xaadimul xadim suñ góore yàlla na gën jëm ci léppi Ahmad al Xadim nañ yokk baat nañ bokk tàbb gaal laa di fii laa di xëy bu